koy way te nangoo liggéey waaw xale yaa ngi di yend ci waar wi ndeysaan jàmbaar yaa ngi di di fanaan ci waar wi cey loolu muy sedd muy tàng ñoo di ngi yaay ku ci am sa doom gisoo dee ko ñaanal bi ma wàccee xam naa ni réew mi neexul ci gisoo yaay metti na gisoo baay metti doom di daan sa doole ngir ñoom yaay ndeysaan sunu yaay yi ñaan sunu doom yi nekk yaay koo oh, yee ay waay loolu neex na yal na ko yàlla def waay ndeysaan na nooy tëgg baa ngi changé woy bi changé ndax nango du woy ku dul ku jàmbaar du la woy ku am jom rek lay woy du woy yàpp man dongo dama ko way cuune déedéet du ko way cuune de allah gay naa ko sàmba du ma ko way yaafu déedéet ku bëgg lu yomb kenn woyu la te nangoo liggéey. waaw ah, ku rafet xol te nangu liggéey. ay waay yéen ko moom. ci waar wi. ay waay. yaa ngi nii. di fanaan ci waar wi. ndeysaan. muy sedd muy tàng. man dongo dama ko way ci ku bëgg si way wi ci waar wi da ngay soppi jikko di def lu baax am xol bu baax di xalaat lu baax nga am jom di liggéey ku am sa doom bañ lu yomba liggéey ñàkk jëriñu bañ a bañ momul. sedd bi ci bañ a triandé. ci bañ a teg ay diil. bañ door marto. loolu bokkul ci jom. loolu du jikko garmi. immigré jàmbaar yaa. am jom rek. jafe-jafe bi ci na sëkk bi ci réew mi na bu ma tàyyee di way i digiree jàmbaar yaa ngi Mbaye Thiam Mbaye Tilène maa di la bëggee dégg naa son maam Cheikh dugal am na solo waaye Sénégal inshallah su ma delloo inshallah inshallah su ma delloo inshallah jàmbaar yaa waaw waaw ñaan la ñu dëkkee bi ma wàccee fii xam ni neexul sedd bi ci réew mi tàngoor bi ci réew mi métti na dëkk bi ci réew mi gisuloo yaay gisuloo baay immigré yi du ma saa yee foofu nga nekk sore na seen xel nekk si réew mi waaye ñi si réew mi seen xel ñu ngi si ñoo si yéen leen ñaanal saa su nekk waajur yaa ngi ñaan mbokk yaa ngi ñaan am bi jàmm yaa ngi ñaan inshallah waaw waaw su ma delloo inshallah inshallah su ma delloo inshallah inshallah waaw Ndongo Lo mi ngi woy lii bi mu demee Amérique tournée Amérique bi la ko woyee woon bu mu demee Amérique la woyee loolu ba mu ñëwee fekk euh, immigré yi nekk Amérique ni ñu sonnee mu xool li fa xew lépp xam ni ñii sonn nañu mu leen su ma delloo dinaa ko wax wayjur yi ñu xam ni sonn ngeen nañu yokk ñaan yi waaw waaw li am na solo. tëgg bi dana changé Oui, bi dana changé VIP ñi ngi accéléré boy dox muy metti bëgg seen lu neex si kanam da ngay tu yakamti bëgg ci jot mais lo yakamti yakamti na nga déssé xel xamni ni galgal mën na bañ jeex waaw da ngay son ba yaakaar ni ndam li ñëw na yaa ngi tekki mais dana am yeneen galgal yu nekk sa kanam bul yakamti yakamti yàqule lu mu neex neex neex nga seen ko mu ngi si kanam andal ak tey yaru yeewu moytu galgal yi nga mën a yaru ku yaru yeewo di nga mëna a fent galgal yi di nga mëna moytu galgal yi di nga mëna fon jaar ci kawam wala nga jaar ci suuf ay fal su nongolo ay mbeur lañu ana ndey fatu ndey fatu ngom ziar la di la bëggee ana mbër yi si kër gi yi mbëru ah bëree bëree rek te di wut ndam bëree day faatu da ngay daan day jabaram la ah sant naa la doomu yaayu Modou Mbodj waaw waaw waaw taysel kay taysel kay taysel kay xale bu jigéen bu gëmat nii la koy defee ci ñay eh nongo xale bu ndaw xale bu ndaw xale bu tuuti bu tuuti tuuti Kalau punya kebun kebun, eh, jinai. Group VIP Mamsyar Internasional. Boy dem Sion dengan Fakas Telu. Didem didem melamui ner dan nak di. Wainala kelenya sepai pato,

di dem ngay moytu nga andak anda yaru andak yar te yewu mo la ci gene bu VIP mam cher way la to ya te sey ay do gastalu di dem yoon wi dafa metti dangay tarxiis di tarxiis rek noonu duñ la bàyyi nga dem noonu duñ la bàyyi nga dem waaye dangay gëm rek di moytu ku nekk ci yoon wu baax danga war a mën a muñ xam ne yoon wi du du lu neex masul yomba doo fekk rek ñu tegal la ko da ngay fight da fight di fight ba jot si mais dangay ngay fight ak fair play da ngay fight ak fair play ana waa Pikine na yéenig ana waa deuxième wattali bu bees yaay ooyé waaw waaw waaw waaw nonoy